bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifatil cilmi waxasin axlaaqana bilxilmi wasaxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximiin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo assalaamu aleykum wa raxmatullaahi wa barakaatu ginnaaw bi santee suñu boroom subxaanahu wa taala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 ñu ngi nuyuwaat soppee Al Misbah yëpp ku lim juum di bëgg lool ci ni ngeen di toppee ak ñun jotaay bi di leen ndokkeelaat ci bis bu tedd bi nga xamante ne mooy bisu ajjuma di ay ayyaam ñaan borom bi mu nangul ñu jaamu yiñ ciy def yépp te jéggal ñu sunuy rëcc rëcc waaye yombalal ñu bañ mën a bokk ci ñi nga xam ne dañ koy taxawee na mu gën a ware maa ngi doon waxtaanee lenn ci wird yi te mooy dog yi nga xamante ne nit ki dana ko def ngir gën a jege boroomam subhaanahu wa taala te loolu bokk ci li nga xamante ne mooy naafile yi loolu bokk ci li nga xam ne mooy naafile yi nga xam ne dañ ciy bàyyiwaale xel di siyaare bu baax a baax soppee al almisbaax yépp di ci beral ab nuyoo suñu xarit suñu wëllëre suñu sëriñ sëriñ Baara Mbàkke moom sëñ Moodu Faati Xari di wëlarew jotaay bi di ànd ak moom ñu ngi koy nuyu di nuyu soxnaam soxna Daba Jaane soxna Alimatu Géy soxna maam Xawa Mbàkke ñoo ngi nuyu bu baax a baax soppee baax yépp ku lim jóom waaye léeg-léeg rek ma am ñu ma ci tànn jot li leen ay nuyoo ngir wane ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi ñu itam ñoo ngi leen di bàyyi xel ni ngeen ñuy bàyyee xel yal nañ dajee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala waaye taw dajeeg tawféexam ci lu nëbbu ak lu feeñ maa ngi doon waxtaane yi aju ci naafile yi ngay def mu di la may tiyaaba boroom xam-xam yi di ko tudde wird wala ay awraat te baat bi day dellu rekk ci ki nga xam ne daa yor ab gojam yor poléem ak baagam dem ca teen ba di wëgg ngir amum ndox jumtukaay yooyu mu yor mooy xeeti tur yi muy wérd walla yi nga xamante ne moom lay def yépp euh, anas ibnu malik radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci jullik suba lu am solo di waxtu yi ñu nekk ak yi nga xam ne moo ci aju yonent bi nee na koo xam ne dafa jàpp jóg dem ca jàkk ja ngir julli ji borom bi subhaanahu wa dana ko defal jéego bu mu jéggi mu bindal ko ca yiw wu bari sippil ko ca bakkaar yu bari te wenn yiw wu ne dañ koy ful bam tolloog fukk bu sëlmalee ca julli ga toog di jaamu boroomam ba jant bi fenk ñu bindal ko feppu karawam wu ne ci yaramam wu ne aw yiw yiw wu ne tolloog aj guñ nangu su fekkente ne julli na ñaari rakkaa ci waxtu yoor yoor ñu bindal ko ci ràkk bu ne ay junni junni yiw loolu nekk yoo xamante ne ay naafila yoo xam dafa ñëw waaye liñ ciy jànge mooy teel a dem ca jàkka ja ndeke ak jotaay ba nga fay toog borom bi subhaanahu wa taala da ciy bindal nit ki tiyaaba ju baree baree baree baree bare nga xam ne julli gi tiyaaba la dem gi jaam dem ca jàkka ja julli gi tiyaaba la ak yi nga xam ne moo ci aju yépp ci yoo xam ne ay tiyaaba la ñi nga xam ne ñooy asalafu saalix maanaam mag ñu baax ñi buñ ko waxee rek loolu lañ ci jublu loolu daa bokkoon ci seen aada maanaam di dugg ci jàkka ji lu jiitu fajar di jot teel a teel a yeewu rek teel a yeewu teela a yeewu njël ci aada yi nit ñu baax ñi la bokkoon magi démb dañ koo fonkoon lool ñi ngi nettali jenn waay ca taabiina ya dafa ñëw ci jumaa ji lu jiitu julli fajar daje fa ak ki nga xam ne mooy abi hurayra wala aba hurayra radiallahu anhu mu jiitu ko waaye lam ko ca tegal mooy bégal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne suñ borom dig na aw yiwu baree bare bare ñi nga xam ne dañuy teel a yeewu daan na wax ne yal na yàlla defal barke ñi nga xam ne dañuy teel a xëy teel a xëy barke da cee nekk teel a xëy barke da cee nekk mag ñi dañ la ko daan yare di la wax ne la wërsëg yi suba teel lañ koy séddale boo nelawee ba wërsëg yi jeex amatul njariñ waaye koo xam ne dangay nelaw ba jant bi fenk ba tàng jër nga door jóg bokkut ci am yitte bokkut ci am yitte am yitte dëgg sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala waxtu njël wi dala du fekk ci biir mbalaan mi wala yi ko jege da ngay jaayante ba teel a jóg yiy dox sa digganteeg teel a yeewu yëpp it nga teel a xeex ak moom ba teel a yeewu wala teel a jóg yomb la bokk na ca teel a tëdd ndax guddee tëdd ba noppi bëgg a teel a jóg mën naa jafe teel a tàqalikook téléphone yi ak télé yi ak yi nga xam ne moo ci aju yëpp waaye nag xeex ak sa bakkan ba not ko ndax fi mu ne léeg-léeg nga gis kook danaan mënumaa teel a jóg waaye bu waroon a fajaru tukki dana régler ay rêveem dana yeewu sangu waxtu wam war a tukki it dana fexe ba génn tukki yitte jum am war koo doxee rek dana ko def noonu itam lay yitte woo boroomam subhaanahu wa taala ci waxtu yi nga xamante ne mooy waxtu njël yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari rakkay fajar yiw wi ci nekk moo ëpp àdduna ak li ci biiram bu yamoon ci lool rek mu doy sëkk ngir nit ki war a yitte woo teel a jóg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu ñaan daan def su noppee ci ak julli julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam julli ci boppam allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba julli googu jeex mooy salaatul ibrahimiya boo ko mënut na ko fexe jàng boo demee ci ku la gën a jege ci nitu daara yi rek boo nee salaatul ibrahimiya mu jàngal la ko fexe ba nga man ko allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ibrahim wa ali ibrahim fi laalamina innaka xamidun majid yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na def bu sëlmalee ci julli it di wax allahumma anta salaamu wa minka salaamu wa ilayka yacuudu salaamu xayyinaa rabbanaa bissalaam wa adxilnaa daara salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikraam daan ko def am na beneen boo gënoon miin moog bii ñoo bokk nett li rek ñoo bokkul ci siixa yi moo tax bi ñëwee nii daana def itam buy ñaan ginnaaw bi mu jullee ba noppi di wax subhaana rabbiyal aliyil ala alwahab laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul xamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa alxayu laa yamuutu bi yadihi alxayr wa huwa ala kulli cheyin xadir laa ilaha illa allah ahlu nihmati walfadli walshanaa'i alxasan laa ilaha illa allah wala naxbudu illa iya muxlisiina lahu ddiin walaw karial kaafiruun ki ñu wax ne la na nga teel a jóg na nga toog ca jàkka ja ab diir na nga teel a waajal ngir jóg jaamu yàlla doo bu jógee bëgg a toog di xoole te deful dara amul benn programme day metti ci moom waaye boo amee benn programme waxtu woowu doo ko neenal benn nga ubbi sa kaamilub alxuraan di jàng benn nga wut ab dog ci dog yi ñuy wax di jàng moo xam dangay jël laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa xayu laa yamuutu bi yadihi al xayr wa huwa ala kulli shay'in xadir nga def téeméeri yoon wala nga def lim bu la soob yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko def digle na itam ñu di ko def ci waxtu njël wi ñu nekk naka noonu subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala xawla wala quwata illa billahi al aliyi moom itam e, ci bàkk borom bi subhaanahu wa la bokk dañ koy tudde sax baaxiyaatu saalixaat ci waxtu wi nga tooge di wétlikoo sa borom subhaanahu wa taala bëgg a def say awraat benn ngi noonu ci dog yooyu naka noonu boo toogoon di wax subuuhun quduusun rabbul malaaikati wa ruux moom itam noonu lay mel xadis la boo xam ne saydatuna Aïcha nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko wax daan na ko wax sax ci ay rukoom naka noonu astaxfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum wa asaluhu tawba wala wa atuubu ilayhi naka noonu itam boo toogee di ko wax yaa ngi def istixfaar ci waxtu njël wi mu nekk lu am njariñ naka noonu boo toogee di wax allahumma la maanica lima axtayta wala muxti lima manaxta wala yanfacu dal jëdd minkal jëdd yaa ngi bàkk borom bi subhaanahu wa taala yaa ngi def ay ñaan ci waxtu woowu te li yi may wax ni yëpp ay xadis la yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale naka noonu ci waxtu woowu boo toogee di bàkk sa boroom naan laa ilaha illa allah xaqul mubiin wala almalikul xaqul mubiin laa ilaha illa allah almalikul xaqul mubiin lem def lim la soob ci waxtu njël yaa ngi bàkk sa boroom subhaanahu wa taala yaa ngi dundal li nga xamante ne mooy waxtu wi naka noonu bismillahi laa yadurru maa ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiu alim joxoon naa la ko ca ñaani dimaas ya yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax wax na ne kuy xëy suba jàng ko suñ borom subhaanahu wa taala dana la fegal lépp lu mën di doon maa ngi ci ay awraat yi nga xamante ne nii sopp nañ jullit bi di ko def ngir di ko dundale li nga xamante ne mooy digganteem ak boroomam bokk na ci loolu julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo ko manoon te xam ko loo julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam doyut julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day tax a jege borom bi subhaanahu wa day tax a jubóog moom day tax yàlla bëgg la julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam day tax a wér da lay musal ci ay feebar yu baree baree baree bare wér gi yaram da nga koy am julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam day yokk tedd nga personnalité ci nit ki julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day yokkal nit ki wërsëgam kon bari looy julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam day tax yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg la te day taxit nga bokk ci ay ñooñam ëllëg yowmal xiyaam nee na saa yu ab jaam jullee ci man moom yonent bi alayhi salaatu salaam suñ boroom dana ko delloo ak ruuxam fu mu tëdd mu jóg fay la nee na sax boo jullee ci man benn yoon ma julli ci yow fukki yoon sallallahu alayhi wa sallam boo jullee ci moom fukki yoon mu julli ci yow téeméeri yoon boo jullee ci moom téeméeri yoon mu julli ci yow junni yoon julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñaanal ko allahuma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa Euh, julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari na lool lool lool ay julli ci yonent bi boo naan sallallahu ala muhammad yaa ngi julli ci moom boo naan allahuma ala muhammad yaa ngi julli ci moom boo naan allahuma muhammad yaa ngi julli ci moom boo yamee foofu boo ca tegee yi ca topp kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka xamidun majid yaa ngi julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam naka noonu boo jullee ci moom ci salaatul fatixi yaa ngi julli ci moom allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaqi bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi l azim yaa ngi julli ci moom moom itam mu bokk ci salaatu yi nga xam ne salaatu yu am ama am doole la mag ñi itam fonkoon ko lool mu bari lool wérdu yooy dem fekk ko ci biir waaw bari na lool awraati mag ñi yoo xamante ne boo demee da nga ca fekk salaatul faatixi mu bokk ci yi nga xam ne dañ ko koy ubbee di ko tëje gën caa ràññeeku wérdu tiijaan naka noonu itam di muslu ci saytaane daa war jaam bi saa su nekk del muslu ci seytaane boo dee tàmbulee jaamu yàlla del muslu ci moom léeg-léeg itam boo toogee ci say awraat na nga ci boole di muslu ci borom bi ñaan mu musal la ci saytaane audu billahi sami al alim min ashaytaani rajim da dégg sax ñi di ko ubbee ay waxtaan mooy maa ngi muslu ci sama borom mi nga xam ne aji dégg la tey aji xam maa ngi ñaan mu musal ma ci saytaane mi nga xam ne ku ñu jam la ku ñu dàq la ku ñu folli ca poste ba mu yoroon la loolu yóbbe ko soxoru lu mu def ciy pexe ngir yàqal nit rek xeeb na ko moo tax rabbi audu bika min hamasaati min hamazaati shayatin nga dégg ñu di ko wax yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ñu ci jax-jaxali seytaane ndax seytaane daa mën a jax-jaxal nit bari na ay sikki sàkk ak ay dut yoo am ci sa bopp ba mel ni li nga bëgg a def leerut ci yow seytaane rek moo la ko roof wa audu bika rabbi an yaxduruun yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci seytaane mu bañ maa teewal ndax seytaane day teewal nit ki day ñëw teew rawatina bu nit demee ba tëdd ci lalu sukkuraat war faatu bu la yàlla dimbaliwut bokkoo ci ñi war a texe saytaane day ñëw ndax foofu nee na nit dana mar maraay woo xamante ne jame jamono jim tollee ci sukkuraat buñ ko joxoon ndox yi ci àdduna bi yépp mën na koo naan te du màndi allahu akbar day tokkamtiku ndax mar woo xam ne kenn xamul num toll waaye ñi ko tiim mën nañoo bañ a xam maraay woowu seytaane ca pexeem mi bon ya mën naa ñëw mel ne ku yor ndox mu sedd di ko xëllamtoo naan ko weddil yàlla ma jox la nga naan weddil yàlla ma jox la nga naan moo tax mu ne nag ma musal ci seytaane mu bañ maa mu bañ maa teewal ndax seytaane laa taamanu makaida seytaani xabla firaaqi ruuxi lil abdaani li annahu waqtal mamaate yati saxsan li kay yaxaramu bi taaati noonu la ko Sëriñ Tubaa waxe ca Masaalikul Jinaan nee na bu leen naagu mukk mukk mukk mukk ci pexe seytaane ndax daa bari pexe nee na li fi saw ruu mi ngi ci sa yaram bul jàpp ne mucc nga ci pexe mi ndax seytaane day ñëw teewal nit ki jamono ja ak ruwam nekkee ci yaramam ci guddee mi njëkk di ko jax-jaxal ba mu faatu doon ab yéefar génn ci diini ji ci anam goo xamante ne baaxut yàlla nañ ci yàlla musal kon ci waxtu yi ak kibis yu tedd yii na nga ci bari lool looy musulu ci seytaane del wax auzu billahi min asheytaani rajim del wax auzu sami samiil alim min asheytaani rajim bu la neexee del wax rabbi auzu bika min hamazaati shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun del muslu ci seytaane moomu nga xamante ne dafa baaxut mbokk yi baat yi nga xamante ne limal naa la ko ci suñ bindu tey nga xamante ne na fukki dog yoo xamante ne dañ koo gaawantoo boo ko setantalee bu baax euh, yiw wi ci nekk daa bari te da lay doy sëkk ngànnaayul awraat yoo xamante ne danga ko wéttalikoo tam bàyyi ko ci njàngolem yonent bi alayhi salaatu wasalaam boolee gi mu fekkoon nga xam ko boo ko bëggee it bëgg nañ boo ko manee nga jàng alxuraanul karim sopp nañ ku koy jàng di jàng alxuraanul kariim bu fekkente ne jàng mi tàmbulee nga alfaatiha tekke sóoratul bàqara di jàng ba kaamil bi jeex baax na moo xam danga ne bis bi danaa jàng ñaari isib weer wi ma wàccee ci kaamil wala bis bi danaa jàng benn isib ñaari weer yi ma wàccee ci kaamil wala danaa jàng ñetti isib wala danaa jàng fukki isib wala danaa jàng ñaar fukki isib gën ngaa bari foofu sax doy naa yam am na ay benn benn yoo xam ne xam naa leen ñooñ danañ jàng kaamilu kaamilub alxuraan bi bis bu yàlla sàkk yàlla na yàlla nangul leen waaye jàng suuratul xamd aayatul kursi yi la mujj ci suuratul baqara loolu dañoo ko sopp moom itam ku ko man ci waxtu yi mu di ko jàng ci fajar gi maanaam alhamdulillahi rabbil alamin mu di ko jàng mooy suuratul xamd suuratul fatiha laa bëgg a wax waaye aayatul kursi yi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum laa taqusuhu sinatun wala nawm lahu ma fi lsamawati wa ma fi l ard man dha alladi yasfaau indahu illa bi idnihi yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum eh, wala yuxiituuna bi cheyin min cilmihi illa bima saa wa shia kursiyuhu lsamawati wal arda wala yaxudduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim loolu mooy ayatul kursi yu jaaroon naa ci ak yow ak la mujj ca suratul baqara te mooy amana rasulu bima unsila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusul wa qaalu samixnaa wa atacnaa xufraanaka rabbana wa ilayka almasir laa yukallifu llahu nafsan illa wusaaha laha maa kasabat wa alayha maktasabat rabbana laa tuaaxidna in nasiina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxammilna maa laa taaqata lana bi waxfu anna waxfir lana warxamna anta mawlaana fanzurna ala alxawmi alkaafirin loolu mooy amana rasulu boo déggatee ñu di ko wax noonu la tëdde yooyu daa bokk ci aaya yi nga xamante ne sopp nañ nit ki di ko jàng ci ay aayaat la bokk waaye aayaati awraad yi ci la bokk naka noonu xulillahuma malikal mulki mu ngi ci suratul aaraaf laqad jaakum rasulun min anfusikum ba aaya ja jeex moo jeexal suratu tawba ba ba tey itam laqad sadaqallahu rasulahu ruhya bil xaqi ba aaya jeex naka noonu alhamdulillahi alladi lam yattaxis walada ba aaya jeex mbokk yi yi may joxoñ ñii tam mel ni ab gaawantu mu nekk ab fàttali ci yow liñ ci jublu mooy wone xalaat maanaam taxawal dundal waxtu yi nga xamante ne ni mooy waxtu njël yi ci jaamu borom bi subhaanahu wa waaye dundal ko ci wéttali ko fi mu ne toog di xalaat rek setantal boobu nga xam ne moom la nit ki di xalaat benn xaaj la ci xaaji jaamu yàlla yi benn xaaj la ci xaaji jaamu yàlla yi benn xaaj la ci xaaju yi nit ki di am ngir déeyaale ak boroomam subhaanahu wa taala jël am mbir di ci setantal di ci réfléchir euh, di ko xereñe dafa am lu muy def ci ruu moo tax ab jullit bi bëgg àgg ci boroomam subhaanahu wa taala léeg-léeg day ñeme wéetaay day ñeme wéetaay day ñeme dagg buum yi dox euh, digganteem ak nit ñi daal di koy sokk nag ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala bu ko defee day am yoo xamante ni da koy mën a settantal waaw man man man di ca xalaat waaye man di wéetal boroomam subhaanahu wa taala day mujj mu doon wéttalam ba bu nekkee moom dong ak mu nekk ci mbooloo ñoo yem ci moom ndax fu mu toll day ànd ak borom bi subhaanahu wa taala loolu dañ koy jàngee ci julli waaye dañ koy jàngee ci jotaayu jàng alxuraan dañ koy jàngee ci itam di tudd turu borom bi subhaanahu wa taala ak di ko bàkk ci xeet yi nga xamante ne moom lañ joxe fii ak yeneen yi nga xam ne moo ko jiitu yal nañu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole sàmm yal na yàlla leeral ñu sunu dund leeralal ñu suñu àjjuma leeralal ñu àjjuma yi ci nekk suñ kanam jàppandilal ñu suñuy wërsëg waaye defal ñu wér gi yaram defal ñu wérug roo yokkal ñu suñu yitte suñ digganteeg moom te xiir ñu ci nangu ko jaamu tam nangu nu koo nangul moom borom bi subhaanahu wa taala di wéy di doon suñ borom ni mu ko doonee te dara du tax mu noppi koo doon basaayam koy soobe borom bi subhaanahu wa taala def ñu ñu doon ay jaamam te nangu sunu njaamu te xam ne ñu néewi yitte lañ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 seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu